bëgg nañoo sàmm seen gora ak taskatu xabaar yi nga xam ne jàpp nañu ne seen indépendance amul lenn loo xam ne danañu ko si daal waxaale ak lu leen ci man di fekk taskatu xabaar yi jamono ji nee nañu situation bi nga xam ne moom la ko bàyyi mu wéy maanaam mënatu da continuer jamono ji nag ñaari mbir moo am face au monstre vivre au péril maanaam dañuy ak njuuma gi daal di dund nag wala dee journal bi nee na jamono ji nag li nga xam ne moom la taskatu xabaar leen di dugal ci kasu bi jot na taskatu xabaar yi maanaam daal di révolté ak njuuma li nga xam ne moo leen di teg fitna di leen di teg musiba agression bi nga xam ne moom la tekk lu jëm ci wàllum liberté de la presse loolee ci boppam moo war a jeex jamono ji nag li nga xam ne moo war a ci taskatu xabaar yi maanaam juboo ci seen biir daal di joxonte loxo ngir nag mën a xeexal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum droit fondamentaux yu taskatu xabaar yi yi seen ji ñoo ko yoral seen bopp Quotidien wax ne loolee la taskatu xabaar yi jeexale yéen kay gi de l'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu fan yi ñu génn ñoo ngi lam-lamee lu jëm ci wàllum dissoudre parti Pastef ak waa Pastef gi nga xam ne ñooy wax lu jëm ci wàllum pétition ngir tas parti bi nga xam ne mooy APR journal bi nee na en tout cas li am ba desal parti politique yi bëri na si yoo xam ne ay hors la loi lañu maanaam sart yi nga xam ne moo tënk parti politique yi bëri na ci ay parti politique yoo xam ne wàccewuñu ak mooma loi bi maanaam bu ñu ko appliqué woon jamono ji bëri na ay parti politique yoo xam ne dootuñu leen tuddati dañuy disparaître yéen kaay gi de place xëy di ñu xibaar naan ñu ordre des avocats kuréel gi nga xam ne moom la ñu a a a tudd ci réew mi ak CPI Cour pénale internationale bi nga xam ne avocat Ousmane Sonko bi xëy duñu ñu Juan na a ñu alxames bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la Branco di déposé li nga xam ne mooy ay preuve ma ci cour pénal international yéen kay gi di réew mi ko dajee ñu xëy fekk fa Aminata Touré nee na wolof Njaay nee na ku mënul ba wolu yàqu yow waaw moom Mimi Touré daal nay wax ne jamono ji gouvernement bu Sénégal ñoo war a tekki seen ndombal ndax dañoo tële ba koy wane nervi yi nga xam ne ñoo ngi tiire ci askan wi di di faata loole nag jamono ji adduna bi yëpp ñoo si teg seen bët réputation bi nga xam ne Sénégal amoon na ko mën na la dayo bi nga xam ne joxoon nañ ko ko Sénégal ci adduna bi loole lépp Macky Sall yàq na ko kaddu yi Aminata Touré la daal am ci réewum Sénégal li ko waral bokk na ci ñetteelu mandat bi nga xam ne moom yi nga ne moo xam na jamono ji nag moo jóg daal di taxaw ngir nag éliminer ay candidat loolee bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne am na ci réew mi Aminata Touré nag daal wax nervi yi nga xam ne ci ay pick-up la ñuy dugg ay pick yoo xam ne ñëpp leen identifié maanaam ñëpp ñu nekk ci wetu police ak ci wetu gendarmerie di rey loolee lu ñaaw la yéen kay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu Aliou Bodian mi nga xam ne moom la ñu reyoon ca diwaanu Kolda mooy ba bi nee na bolu fetal moo kii di wàllu Russie njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag ñoom am nañu ci yaakaar naam sax ñaari wàll yëpp kenn ku nekk am na foongooy Afrique dafa yàgg am taxawaay ci lu jëm ci guerre nga xam ne moo dox diggante Russie ak Ukraine yi ni kaay gii la sax xëy dañu xibaar naan ñu jéego yi nga xam ne délégation africaine bi jéego nañu ko dem ci diwaanu Ukraine ak ci diwaanu Russie ki nga xam ne mooy Poutine moom rafetlu na ko bu baax a baax Walfadjri yéen kaay Aminata Touré nee na Macky Sall bala nga ne matériel yi nga xam ne moom nga ngàbb ca diwaanu Ukraine soxla nañu ko fii ci Sénégal yéenekaay gi de enquête xëy duñu xibaar naan ñu tabaski ren gi bu ñu leen waxee ne leen xar amul bu mu leen bett ndax daral gi nga xam ne moo nekk stade Léopold Sédar Senghor heure bii daana fekk mu fees dell ki xar yéenekaay gi nee na marché Sandiara maanaam ca département bu Mbour moom teen tabaski bu doon jub maanaam marché ba jamono ji da doon fees dell ki xar te ren ji demeewul noonu journal bi na yi nga xam ne ñoo doon jóge Mali ak moom la ñuy yar jamono ji moo bi waaye nag cher ba maara day taali journal bi di direct news Amadou moom la ñu génn amaloon na ay visite ca marché bu Sandiara Touba Toul sew xaay journal bi nee na moom Amadou Ba daan nay bu kenn jaaxle xar yi ñoo ngi fii yéen kaay gi di réew mi quotidien duñu xibaar naan ñu lu doy waar moo xew ci diwaanu cité mixa dafa benn xale bu góor boo xam ne tailleur la ci Facebook bi dafa gisoon benn numéro salon de massage di koy woo téléphone ñu ne ko ñun cité mixan la ñu nekk xale bu góor bi nee na ba mu demee ñett xale yu jigéen ak juróomi xale yu góor la fa fekk mu bëgg a tourné gars yi ko daal di koy téye na ko par la force da nga tëdd ak benn xale bu jigéen bi dañu ko forcé bi muy tëdd xale bu jigéen bi gars yi di ko filmé journal bi ne xale bu góor bi ba mu rëccee ci violé gi nga xam ne moom la ñu ko doon violé dafa dem ci commissariat bu Parcelles Assainies daa defay porte plainte waa police bi ñu dikkee dañoo fekk ñetti xale yu góor ak ñetti xale yu jigéen teg nañu leen loxo journal bi nee na lu toll ci ñaar fukki téléphone fekk nañu